kon bu ñu waxee barab bi rek wax li ci aju danañ wax soxna su tedd si nga xam ni moo fi tëdd muy soxna Mariama Bousso maam Jaara baay euh, Bathie si ñu bëgg rek nga defal nu benn laytaay ju ndaw euh, ci jëmm ji nga xam ni moo tëdd fii ba noppi nag ñu door a waxtaan euh, ci li nga xamante ni mooy jëmmi barab bi incha allah ak waajtaayu maggal gi ak it bokki taalibe yi ñëw naka lañ war a def bu nu ñëwee fii ci barabu tedd bi nga xam ni mooy barabu soxna Jaara noo ngi noo ngi siyaara tey nuyu ñëpp bokki taalibe yi yëpp ak fu ñu mën ne ci biir ak bitim réew mi di leen sant it bu baax a baax a baax sant bu baax ak a njukkal ak gërëm sëñ Abdou Samad mi nga xam ne liggéey bi lépp moo ko waral moo ne ci kanam moo ne ci gannaaw yàgg fi lool te yàgg ko taxaw yàgg ko jiite te mu boole te sëñ Tuubaa booleel ko ci liggéey yi nga xam ne moom lay liggéeyal sëñ Tuubaa te muy doon liggéey bu ñu nangu soxna Mariamu Bousso bëgg naa lool ñuy ñuy ñuy ñuy téye turoo Mariamu Bousso te bañ di wax Mariama Eh, ndax loolu daal mooy turam dëgg-dëgg moom nag mooy ki nga xam ne moo nekk fii di noppaloo fii ci kër gi ci jamono yi nga xam ne eh, Maba Jaxu indiwuloon indiwoon na leen fii moom Maam Mor Anta Sali ak yeneen doomi soxna yu bare bari ngir maanaam ñu rawale fi seen ngor ak seen diine seen lislaam sàmme fi seen ngor eh, sàmm def fi taal fi ay daara yi jàngu ba nga xam ne maanaam lislaam niñ ko bëgg ci biir réew mi nañ ko bëgg woon ci biir réew ma bu fa xawee jafe ndax la fa ba nekk it mu yomb fii ndax lim xaw a làqu tubaab bi loolu moo leen fi indi woon eh, bi mu Maam Mor Anta ñëwee bokkoon ci doomi soxna yi mu indi woon fii ma ba am yaakaar ju ci moom ba jàll sil ko Poroxaan indi ko fii ci Poroxaan bi mu ko indi itam mu ànd ak waa këram xam ngeen maam maam Thierno ñoom ñëpp fii lañ ganee àddina Euh, maam soxna ma mu Bousso mii bokk ci ñi soxna yi nga xam ne ñoom la ñoom la ñoom la indaale woon ñoom bokk ak ñoom ne fii di ci liggéey bi mm, nekk fi bi nga biñ fi amee ñaari at ak tuuti ci la soxna si wàcc ci liggéey ñu mm, kii ko fi mu muy noppaloo fi bi nga xamee ne ay wi jeex na diggante Maba ak Buur Siin 1867 bi loolu jeexee it Maam Mor Anta Sali dafa dellu ànd ak Lat Joor ñu ñu dellu déqali lii daal mooy li fi indi soxna si mille 1864 bàyyi ko fi ba 1867 66 mu mu bàyyi ko fi ñu ñu ñu ñu ñu suturaal ko fii ni borom kër borom Maam Mor Anta Sali dellu bu ko defee ak ànd ak njaboot gi mu fi indi woon ñëpp ñu ñu ñu delluwaat ñu delluwaat fee nga xam ne mooy déqali ngir ci càkkutéefu Lat Joor ngir mu jàppale ko ci liggéey bu foofu ci wàllu ci wàllu lislaam euh, Baye bàcc ko wax barab bu tedd bi nga xam ni mooy Poroxaan euh, jëmm ju tëdd ji tëdd fi muy soxna Mariama Bousso euh, tey lan ngay dénk ñi nga xam ni dañuy ñëw fii di barkeelu si ci jëmmam ju tedd ji yan teggin lañ war a làmboo ak nan lañu war a siyaaree jëmm ju tedd ji nga xam ne moo tëdd fii. waaw moom moom teggin yi nga xam ne moom lañu ñu war a indaale war ko fee nekke war koo yóbbaale mooy teggini lislaam mooy teggini jullit jullit moom fu mu mën ne bu nekkee ci biir néegam mbaa mu nekk ci biir wanagam sax dafa war a ànd ak ay teggin ak sutura loolu mooy li nga xam ne moom lañ ko lañ ko sant moom moom moom jullit bi warta xaar bay ñëw fii di soog a abbu sutura ak teraanga ak teggin déedéet da koy nekk ci seen kër borom kër gi yar ci njaboot ga ñoom ñu di ko dund ba fu ñu dem yóbbaale ko fa buñ buñ dellu siwaat tam indaale ko loolu mooy li nga xam ne moom mooy moo moo war ab jullit bu ko defee liñ buñ ñëwee fii màggal gi barab bi nga xam ne moom lañ fi moo leen tax a jóg kooku moom dafa bokk ci li nga xam ne moom la sunu borom di wax wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa xayrun la yaakaar yu mel nii teggin yu mel nii yi ngay wax su sutura su mel ni màggal gi ñu màggal barab bi soxna si lépp ak yaakaar jiñ ci am ci ak cofeel gi lépp te yàlla tax dafa dugg ci lo baat boobu mooy xormatullah kooku nag bu fekkente ne jox nga ko njukkal jox nga ko sutura jox nga ko teraanga màggal nga ko màggal nga yàlla nee na moom nga màggal wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa xayrun lahu moo gën ci moom moom di ko def kon nag nan bàyyi xel ne ñëw gi ànd gi teggiin nekk fi ànd gi teggiin dellu yóbbaale teggiin yi di ko dund ba ba nuy faatu loolu mooy li nga xam ne moo nu war amul benn saan ak boo xam ne war na nañoo tàqalikoo ak teggin yooyu ndax teggin yi lislaam mooy sunu biir amul lu dul moom. voilà kon Baye Bathie mel na ne ñu ngi ci waajtaayu euh, li nga xamante ni mooy ziar bi ana nan ngeen koy waajee ci barab bi euh, ba nga xamante ni képp ku ñëwit euh, incha allah li nga bëgg di nga ko mën a def ba dellu te doo am benn jafe-jafe. ñi nga xam ne ñooy ñëw ci biir barab bi di siyaare bu ñëwee da nañ fi fekk ay ndaw benn muy ay ndaw yoo xam ne ay taalibe li ñuy doon ne ñoom. Euh, bokk yaakaar jéeg bëgg géeg cofeel géeg yëpp ñoo ko bokk ci sëñ bi kon nag ñooñu dimbalante bi ak jàppalante bi ak yërëmante bi wax dëgg yàlla war naa yomb ci seen diggante bu weesoo ndaw yooyu danañ fi teg ay ndaw yoo xam ni ndaw yi buur la ñuy doon ñoom it lu mel ne li fi indi ndaw yi sëriñ bi rek moo leen fi indi muy jàppale taalibe yi ba nga xam ne seenub siyaara danañ ko mën a joxe ni ñu ko bëggee te du am lu ci mën a gaar ci ay jafe-jafe itam Euh, wommat ba nga mën a xam ne da nga mën a génn ci loolu te boole ko teggin yaa sutura yaag ak ak yar ba nga xam ne moom la Sëñ waa def ci nun te di ko siintu kenn ku nekk ci nun mu di ko def ci keneen kon loolu rek mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy li nu war ndaw yaa ngi fi si ñoom rek ñi fi ñëw di seer rek ñoo leen tax a jóg benn sëriñ bi bàyyi leen fi wala muy doon ay ndawi buur yoo xam ni gindi gindi taalibe ak jàppale leen ak yombale leen seenu seer rek moo leen fa bàyyi nag ñoom fa kon nag ñoom weranteeg ñoom du ko jar ndax euh, ñoom ñoo leen fi bàyyi kon nag moom nañ leen leen jàppalante ba nga xam ne jàppalante bi rek mooy mën a tax siyaara bi yomb du am benn jafe-jafe du am werante du am xuloo du am werante du am buuxante leen a fii la fu ñu la fii rek bul werante jaaral foofu ndax loolu mooy seen ndigal te te yéen rek a tax ñu digal leen ko. di sant rek moom di sant di wëlbatiku di santaan ñëpp te xam ne lépp lu nu wax rek noo ngi ko teg ci bëgg soxna si. ak yaakaar ko ak doyloo ko ak di jéem a sàkku ngërëmam te nag bëgg ko bokk ak ñëpp nag góor jigéen mag ndaw te luñ ci am bu sunuy doom sunuy sët sunuy sëtaat bu ñëwee yàlla na ñu ci ëppale ci barke si Ahmadul Xadim waa kay jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision As-Samadiyya TV ñu ñëwalaatan leen fii ci barab bu tedd bi nga xam ne mooy barabu soxna Mariama Bousso Maam Jaara